mu ngi nii décret yaa ngi nii mën naa leen koo won waaw am nga ci responsabilité mais loolu yëpp politique la rek puisque bu àndoon ak yow nangoo topp sa ginnaaw doo ko teg li nga ko teg donc dawalal yërmande nga bàyyi ko mu dem puisque ñëpp xam nañ ne le 30 mars li ñuy décider yaa koy décider. mais 30 mars ñaareel bi waaw ñaareel bi man xaaruma délibéré Macky laay waxal xanaa am naa sañ wax ak moom. léegi ñu bëggoon ne ko ko ko bàyyi mu dem ñaareel bi.